بأمتي واستر لها واجبرها صلوتي واستر لا واجبران عربيا له اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لا واجبران عربيا له يومي وخم وخل وكونوا على ما الشيخ كان يحسنا عليه من الطاعات قولا ومن عمل وعاسب النفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون خسران تربح دون أسرى من منصرنا قبل القيامة تربح دون خسرى من منصرنا قبل القيامة تربح دون خسرى من منصرنا قبل القيامة benn bindkat nee na aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi laa bil jismi insaanu jublul ci sa bakkan nga defar ko defar ko ba mu set na nga mën a tegu ci yoon waaye boo ko deful rek rëccu lay indi kon li ñuy wax nii yëpp dañu bëgg rek defaruwaat ñun ñëpp waaye ka tëdd ak njaaxaanam yooyu ak kaalaam googu mu daan kaalawoo sànni tànk yi bu jëlee biig di wax ak kan la doon waxal bakkan ak kan aqbil ala nafs yaa xaadimal jismi kam tasaa li xidmatihi atatlubu ribha mimma fihi xusraanu mu ne aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insaanu waaw ko defee nag waxtaan yi yëpp li tax ñu di ko def rek nañu dellu siwaat nañ dellu rek tegu ci yoon bu dul loolu danañ dem ba àgg ci mpax daanu ci te fekk ni du foofa boo fa fekkul nag ku la mën a génne boo watul dootoo génne te itam jot na jot na fii ñu toll ni sat lislaam bi turwee fi des rek waaye xam-xamu lislaam bi léegi ñi ci bari duñ ko laal bu ko defee nag yàlla bind fi bàyyi na fi lépp yàlla bàyyi na fi lépp ni ko sëñ Babacar waxe woon ni rek ne ni ko Sidi Boubacar waxe woon rek ci gàmmu ga ci gàmmu ga te boo demee da fekk loolu ci benn aaya ne boo demee rek dangay fekk loolu ci benn aaya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 wa maa yulaqaaha wa maa yulaqaaha defaru jot na na moom daal xam naa defaru daal jot na jot na ñu seetaat suñu bopp jot na nag ñun ñëpp ñu bokk seetaat suñu bopp ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu bind ne ki ñu xam ni ñun moo ñu bind muy borom bi muy borom bi lan la bàyyi loo xam ne danañu ko laaj ëllëg lu mu ñu wanul fii lan la bàyyi loo xam ne danañu ko war a laaj ëllëg lu ñu bàyyi fii te waxuñu ko te waxuñu ko. damay wax ni jàngalekatu école yi. nee day wax rek ni jàngalekatu école yi. début d'année bi début d'année bi. li ñuy génne programme li ñuy génne ñoom programme at mi. di ko wan élèves yi. di wan élèves yi. en même temps en même temps. bu ñu génne waale woon bu ñu génne waale woon. Euh, épreuve fin d'année yi. épreuve fin d'année yi. xale yi xool ko yi xool ko. gis ko ci programme bi gis ci programme bi. kon fin d'année nu muy kon fin d'année nu muy mel. xanaa ku jàng. xanaa ku jàng. waaye ki jàngul. waaye ki jàngul. dem na war a demul. ndax dem na moom. ki triché sax ba dem. ne ki triché sax ba dem. ba dem. lu mu yóbbaale lan la yóbbaale. yóbbuwul dara yóbbuwul dara. bopp neen fa nekk rek. bopp neen rek ka fa nekk. te yàlla nag bëgg na ñëpp dem. te yàlla nag moom bëgg na ñëpp dem. lépp la leeral. lépp la leeral. boo tuubee rek. boo tuubee rek. yu baddilu laahu. sayyiaatihim xasanaati. foo waroon def plus x. waroon def plus x. nga def ko mooy x. nga def ko mooy x. lu la waaj di may. lu la waaj di may. double quarante. double zero six quarante. <laughs> barakallahu yal nañu yàlla doole jàppale waxtaan wi ñu sant ah, eh, Haj Malick ne waxtaan wi ñu sant rek Haj Malick ak Bachirou Bachirou génne ko. moom. dafa bëgg ñun ñëpp ñu nafaraat dafa bëgg ñun ñëpp ñu rek suñu bopp. xoolaat ku nekk la la nga yor. xoolaat kenn ku ne la nga yor. te moomuloo ko ko. delloo ko borom ko borom. sinon. da ngay dem ba ëllëg da ci kanamu yàlla ci lépp rafet. mu delloo yëpp ña nga xam ni ñoom ñoo ko moomoon looy dese lan ngay dese dara yàlla nañ ci yàlla boole musal déedéet waxuñu kenn nag bàyyil àdduna yàlla daal àdduna terewu ko kenn ndax wabtaxi fi ma aateka allahu daaral axira waaye wala tansa nasibaka wa axsin kama axsana allahu waaye wala tabgi alfasaada aywa yàlla nañu yàlla boole jàppale nañu yàlla boole jàppale. Bachir moom daal bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp. kilifa diine yëpp rek kilifa diine yëpp rek. ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax. yàlla di ñaan nag yàlla. sunu borom subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala yàlla boppam yàlla nañu yàlla boole jéggalal boppam wuutuñu ci xaq yi dox ci sunu diggante wuutuñu ci xaq yi dox ci sunuy diggante kenn ku nekk mu fayal la sa morom kenn ku nekk mu fayal la sa morom mën na ko mën na ko am na ko sañ na ko te kenn du ko wax lu tax déedéet te kenn du ko wax lu tax yàlla nañu ko defal yàlla yàlla boole defal yàlla defal bu ñu sañoon daal ñu continuer lii kenn ku ne dellul ci sa kër rek ci sa kër rek nga xoolaat sa bopp na ngay doxale na ngay doxale ak na ngay dunde ak na ngay dunde ndax yoon la wala du yoon barakallah qabla fawaatil awaan nag boo demee ba dara desul nag bu dee nga tëdd ci lalu sukuraat bu demee nag ba nga xam ne dara desul nga tëdd ci lalu sukuraat tey rëccu tey rëccu dara jëriñ dara jëriñ yal nañ ci yàlla boole musal ne lii nag ñuy def nii waxtaan la rek ñu war a daje waxtaan rek déedéet àddina daal moom yàlla terewu ko kenn xéewal yi fi ne yépp pour nit ñi rek la waaye def nu ko fi nag pour lottal kenn barakallah waaye solu wutal loo def ci poche bi wutal foo dëkk wutal looy liggéey wutal waaye nag loole na tegu ci yoon nag yàlla nañ ci yàlla boole jàppale yàlla nañu yàlla yàlla jàppale delloo suwaat yi nag ci julli te waajtaay ba ca defaru ci war a doxantu ba lépp set nga soog a di raxasu ñëw toog di jàpp benn ci loxo bi ba ca tànk ba lenn lu ci ne nga laaj lu ci yàlla wax yooyu daal tem bi Bachir daal temam bi fa tabarakallahu am na solo lool jaarakallahu skay min qaala darratin xayran yarahu مثقال ذرة شرا يره nee daal ñu defaru bismillah ñu defaru daal kenn amul loo ko jame kenn amul nag loo jame yàlla ndax lépp leer na ndax lépp leer na lépp leer na ne xam sëñ Mansour nga ñaan ñu daal ne nga ñaan ne am na sunu mbokk yi fi ne eh, Pape Sambaare nga ca mi ngi ci waaw waaw Pape Sambaare waaw dem na ah, ak sa Mansour Cissé bu bubaay alxaaji am Cissé yónnee na fi délégation moom it Samba Diop moo ko jiite papa Habib Sakho ñëw na ak njabootu maam góor gi Ilimane Sakho ñëpp jóge ca Ngapparu alxaaji Jibril Gueye imaamu ratib ca zawiya maam Seyd Hadji Malick fële ca New York ak doomam xaj góora jéey ñoom it ñëw nañu ñu moom it njaboot gi njaboot la ci góor gi Moussa Dieye bu sàkkal ñëw na moom itam Ahmed Tidiane Tall imam tàllal leen loxo yi ñu ngi ñaan fu waay na ni amin tàllal leen loxo yi dugal ci yenn yëpp dugal ci Seydi Boubacar xalifa bi yàlla may ko ne ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha salat al fatih ayatul kursi lixlaas fadaqi naasi tëje ko salaatu fati jaamoo ko yàlla diigal ci nag soxla yépp yal na ko yàlla faj ci barke rasulillahi boole ca wér ak dund ba ca kanam wuutuñu ci xaq yi dox suñu diggante kenn ku ne mu fayal la sa morom ci barke rasulillahi waali njaay ca New York ñu dugal ko ci ñaan gi ak Pape Seydou Ndiaye ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla xettali ak ña fa nekk ñoom ñëpp ci barke rasulillahi wax leen amin wax leen amin allahuma amin amin allahuma amin yal na yàlla defar lépp barkeen bi ummati wastur la wajburan arabiyan lahu وأستر لا واجبرا